This is um, coming from the King of Saudi Arabia. But we can't tell exactly who is in that flight. But probably it's a surprise. But whatever it is, we'll um, let you know as we go along. But this is, we want to believe is one of the guests that are been invited for the uh, uh, occasion, that is the inauguration of President Barrow. And um, we understand it's a flight coming all the way from the Kingdom of Saudi Arabia. And we will keep following. So you can see these images live from the Banjul International Airport. And um, this is the arrival um, you know, so we cannot tell who, who is exactly in that flight, but we understand it's coming from the Kingdom of Saudi Arabia. So we will, will um, you know, you know, or oh, the, or oh, the, the, the, okay, the flight itself is Kingdom of Saudi So as you can see, Kingdom of Saudi Arabia. You can read that for yourself. So we will wait and see uh, to know who is exactly in that flight. Kingdom of Saudi Arabia is what is written in that flight. Whether it's coming all the way, in, in fact, in Saudi, probably, would, you know, it's another thing. But you can see it and read for yourself there if that uh, you have seen uh, Kingdom of Saudi Arabia. So mon yang uh, liñ doon wax rek kon gis ngeen uh, li ñenn ci gan yi nga xamante ne ñu ngi war na ñëw yegg si si réew mi pour fekkee uh, bés bi waaye ñu ngi xaarandi pour ñu xam kan la flight boobu mu ngi ci mu ngi soog a yegg si waaw li ma doon wax di nga gan yuy ñëw nii ECOWAS yi ñëw da dañ ñëw fekki ci gën a dooleel seen naataango pour wan ne daal ñoom lu wax wala seen ndaw yu fi ñëwoon liñ gis jàpp ne loolu moo amoon dañ ko ñëw pour dëgëral euh, ci élection bi nu mu demee. waaw loolu loolu bokk na si ñoom dañ ñëw dëgëral wane ne ndaw yi ebolo ñu ñëw li ñu wax ne loolu moo fi am si réew loolu moo am loolu moo tax ECOWAS ñëw reeroo la mbir ECOWAS euh, ku xew la si ñoom dañoo dem di fekkile waaye sax am na ñuy fekkile sax ñoo xam ne sax seen mbir sax yoon daf ko ñaawlu yoon daf ko daf ko rafetluwut ko si ñoo xam ne sax nuñ def bi am rafetut waaye terewul ñu fekkale ko kon dafa mel ni ñoom fekkale bi rek daanaka dafa nekk lu nga xam ne comme ku xew la rek nga fekkale ko waaye duñ duñ si dee seet ndax kii lu mu xew la yoon moo ko jox wala yoon joxu ko because lii problème bi mooy ne ñoom ñëpp demoon nañ Guinée Conakry si su bu bu dee doon def mhm. te xam nañ ne Condé lu mu defoon ba ñëw bay waat du yoon waaye xam nga foog ñu fekkale ko because réewul diggante réewal réglo diplôme dafa diplomatique mu ngi fa den suñu la invité foog nga dem bot bii nag moom weakness bu am solo la la bu am solo la gars yi am waaw. Mm. yes jërëjëf loolu am na solo so as you can see uh, there on your screens and you know the. Uh, at the independent, uh, of course, uh, Banjul International uh, Airport. the guest is um, probably any time so going to alight from that um, plane or flight, so we can know. So here he is now getting down. Um, yeah, we're yet to confirm who is it, but um, apparently it looks like um, it's from from Saudi Arabia. This is um, the guest is from Saudi Arabia. It, as you can see, it's how it looks like, and uh, but we would uh, get to know who he is and um, uh, you know, and then we'll let you know accordingly, inshallah. But apparently, as you can see, it looks like he is from Saudi Arabia. So these are um, these are live images from the Banjul International Airport. The um, guest, um, you know, uh, this is happening uh, from. So Nene, uh, just to allow you to summarize this in Mandinka as we are saying it. Abaraka Bake, Amadou Kante, e eh, han Hansa kattandala ko Africa TV lom Independence Studio Murodami yalon ko bilom e President Balola Karni Lungoti. Eh, Nalba imejo jibe kam yalon ko minka bo television la fannala jibe la la fanala wolon blade dami yalon ko International Airport, Banyun International Airport. nin temmen na albaje kan immejo do da mi yalon ko kingdom of saudi arabia luntam babor nan je mi yalon ko fananata mabe e pour kana barola en kaden dirol woto ni mu fenete mi yalon ko banko duniya fanna dama babiji da mi yalon ko e mi nata nan pour kana barola en kala momuta pour kana ka bendum fenno mi yalon ko kumata bakale bawo nga folo ko abika sotono wato wati bar sanji lulu sanji lulu wada kumara baka lundan ko bonan banko fanna jamato pro kanana ka ben nin kalendiro la amadu kante and, and, and he's been welcomed by our foreign affairs minister mamadou tangara yeah anin ah, nin tembe tangara mi yalon ko atelon na foreign minister mi yalon ko atelen barta nin bawta la bankon ko la kola aketa moti mi yalon ko atelen nin eh, saudi arabia la nin lutamba bendum e eh, butum ngana le aje ko nin ko president sain de wataro la do dame on ka batal bulu bataro mutare pour ka preparation ke pour kana eh, independence stadium moto a ah, butum am salbe trampe ay africa tv mbabe le bon labi all right uh, thank you very much mon yang uh, jan yange ñew gis nga mm-hmm. uh, uh, saudi lañ joge uh, dafa melni mamadou tangara foreign affairs minister mom moko wel koom mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo dafa mel ni gan yi ñu ngee jógee ko fu nekk pour ñëw ci bés bi. absolument loolu moo am Amadou gis ngeen ko noonu kooku euh, délégation mu nga xam ne moo jógee Saudi muy lu am solo Amadou bu goos euh, Arabie Saoudi réew bu am solo la si àddina bi spécial si umma islam bi leen suñ toogee ñu gis Gambie xewle ñu gis ñu indi délégation am spécial flight loolu Amadou dafa mel ni yëg neen réew mi safoon neen réew waaye yëg neen tam ki nga xam ne mooy njiit réew kon mu melni ni li nga moy relais sen site bu nga xamne mu ngi dox ci diggante li nga xamne moy Arabie Saoudi ak Gambia tay leer na bu baax because euh, delegation bu am solo la ba pare legi, legui te xamna ne legui tay ñu gis leen fi nga xamne ne ci si si stade mu nek na lu am solo because tam euh dafa wara am jamm ak diggante mom ak rew bu ko legui nit ñi toogatun amul rew rew bo xalaat rek sa doomi rew ñu ngi fa di liggéey motax tax euh, rataxal def ci day baax pour diplomate bi mu mu wook mu am solo daf si dee baax te dañ dee naw réew sax naka la mun a amee diplomate bu boo xam ne nii dafa daj ci àddina bi daf dee am solo te lii bokk na si kon mu mel ni euh, Gambie tam si mbiri diplomatique relationship bi wook na bu baax bu li ñu fi gis nii am na solo bu ko gis ne ne romb neen sa Afrique léegi dem neen bi nga Saudi so na lu am solo all right uh, Binta it looks like more guests are coming and of course um, we were talking about the eight um, eight head of states coming from the ECOWAS um, sub-region but this time round it looks like we are seeing people coming all the way from from Saudi and other countries as well so it's it's it's. It's right, looks like it's a surprise because yeah. he was not part of the list that we got. Yeah. Uh, but it's very important because uh, Saudi Arabia and Gambia have a very good bilateral relationship. Yeah, so I believe uh, this is one of the way they are strengthening it. Of course, uh, if a Gambian president is being sworn in, in Rada, I believe that it's very important for them also to take part or to witness the, the event. Um, and I believe this is exactly what they're, doing, are doing Indeed, and um, as you can uh, see, these are images live from the Banjul International Airport. The um, guest from Saudi uh, has uh, just uh, departed the, um, of course, airport and making his way probably to where he's going to be hosted or maybe stayed here.